asalaamaaleykum mbokki internet yi nga xamante ni saa su ne ñooy bàyyi seen xel ak seen i xalaat jëmale ko ci ñun ñun la TMS TV mu nekk nag mbégte ak contentement ci ñun mi nga xamante ni saa su ne euh, yéen a ñuy seetaan di ñu dooleel du ñu may courage ndax ñu gën a yokk professionnalisme euh, bi ci loolu nag mbokki internet yi ñu daal di nuy jox wàccuwaay ki nga xamante ni rek moo nekk the king all the king di bàyyi sëriñ si di des brodé dëmm di alaaji Thierno Moule Sow di jox wàccuwaay tënk nuyoo bi ci ñi nga xamante ni ñoo nekk groupe bu TMS TV ci naka noonu mbokki internet yi yéen a ngi seetaan seen émission bi nga xamante ni nee naa leen wàllu liir lire commentaire lay jëmale saa su ne fii lay xewee fii laa TMS TV ñu daal di leen eh, indal nag vidéo yi nga xamante ni vidéo yu am jàngat la vidéo yu doy waar yi nga xamante ni dafa daal di am ay ci loolu nag mbokki internet yi dañ leen di daal di eh, liiral eh, yooyu les vidéos seen i commentaire ci kanam tuuti lay doon waaye nag mbokki internet yi ñu daal di tàmbali li nga xamante ni moo ñu soxal mu nekk vidéo yooyu yooyu mbokki internet yi ñu daal di tànn nag vidéo bi ci mel ni Instagram révélation par appel direct avec Thierno Moule Sow ci boobule video nag yéen ngi gis image nag image bi nga xamante ni Alaaji Thierno Moule Sow moo ci nekk mu nekkal ak euh, en appel avec euh, ces deux personnes mu nekk nag li nga xamante ni dañuy daal di diisoo ak Alaaji Thierno Moule Sow li nga xamante ni moom moo leen joto dal ci euh, beneen maamën ci beneen sëriñ bi nga xamante ni mu ngi fii ci Sénégal donc nag mu nekk li nga xamante ni day beneen preuve la ci ki nga xamante ni moo nekk Alaaji Thierno Moule Sow ndax day wone ni Alaaji mu Moule Sow yàlla may na ko kun a faya kun mu nekk nag le king all the king di bàyyi sëriñ si ba tax ni ñoom nii ñoo ngi nekk ba ba ba Europe daal di woo euh, sur appel Instagram euh, Thierno Moule Sow ngir rek diisoo ak moom ndaxte gis nañ ne li nga xamante ni mberteel la ci ñoom ci beneen maa mën waaye nag euh, bi ñu gisee alaaji Thierno Moule Sow xam ne ni yàlla may na ko kun may ko fay kun mun ñu daal di koy wax li nga xamante ni moo leen tax a yëkkati waaye wax ko li wax ko li nga xamante ni moom moom moom moo leen soxal ci wàllum seen mbirum wér wér yaram waaye itam li nga xamante ni moo leen jot dal ci loolu nag mbokki internet yi ci boobule vidéo la ñuy daal di euh, tàmbali li nga xamante ni moo nekk mbokk internet yi ñu sélectionné ñu daal di tàmbali nag euh, benn internet ku ci mel ni kiralum moom itam yëkkati na kàddu yu am solo ak kàddu yi ci mel ni ay waay sànn kon batalo joola euh, jinne yee ko daaneel ci boobule vidéo nag ñu gisaat beneen internet ku ci mel ni Euh, les délires de boy ghetto boobu les vidéos nag ñu gis euh, bi les internautes mu daal di yëkkati kàddu yi ci mel ni billaahi gëwma la euh, gëm naa la ndax bàyyi Niass lu mu mënul rek amul donc nag mu mu nekk li nga xamante ni lu yéem a yéema la ñu àdduna nag demaat ci beneen internaute ku ci mel ni soxna Fati Sall moom itam yëkkati na kàddu yu am solo kàddu yi ci mel ni waa xanaa Sénégal moom jigéen ñëpp euh, ñoo amee jinne euh, la jinne yëpp dugg ah kemaan la macha allah ci loolu nag mu nekk li nga xamante ni euh, remarque la constat la fii ci Sénégal ndaxte du Sénégal rek moo am ay jinne même euh, biti réew am na ay jinne ndax fa la ëppee waaye nag dañ koo xamul ku xamul nag boo di seetaan Alaaji Thierno Moule Sow di nga ci am yeete di nga ci am misaal di nga ci am jàngat waaye nag di nga xam naka ngay dundee ci sa biir àdduna naka la euh, ngay xamee itam euh, ki nga xamante ni moo nekk wàllum jinne wala wàllum dëmm da ngay daal di seetaan sur la TMS TV mu nekk nag chaîne bi nga xamante ni chaîne leader la mooy feeñal lépp lu nëbb waaye ba tey internautes yi dañuy àddu demaat ci beneen internaute ki nga xamante ni moo nekk euh, ba Dadine Sow Dadil Sow nag moom itam yëkkati nag kàddu yi ci mel ni Bilay Thierno Moule Sow les vidéos sont anti stress moom mooy wéttali vous êtes les meilleurs mentions cent cent pour cent euh, ci boobu les vidéos itam ñu xoolaat beneen internaute euh, ku ci mel ni Bafodé Gassama moom itam yëkkati nag kaddu yi am solo. kaddu yi ci mel ni Dieu t'a demandé quelque chose je suis d'accord avec vous courage pour ton travail fais euh, très attention aux défaits donc nag mu nekk li nga xamante ni suggestion la waaye conseil la. ci ki nga xamante ni moo nekk yi alaaji Thierno Moule Sow ndaxte di ki la bëgg moo lay naan sangul donc ku la bëgg rek moo lay moo lay naan sangu ba tax ni internet yi itam dañoo fonk ceex na mu la Sow di indi seen i suggestion indi seen i xel seen i xalaat jëmale ko ci ceex alaaji Thierno Moule Sow ndaxte ku la bëgg nag wax dëgg fa yàlla moo la sonal ku la bëggul nag moo la noppal ba tax ni nag mbokki internet yi ñu àddu nag demaat ci beneen euh, internet ku ci mel ni Saliou Silla Saliou Sylla nag moom itam yëkkati nag kàddu yi ci mel ni au début je n'y croyais pas mais en, regardant la vidéo j'ai pleuré merci Thierno Moule so donc nag c'est émotionnel bokki internet yi euh, lii nag fii lay daal di xewee fii rek ngay déggee ay sensation yi nga xamante ni macha allah mosoo koo dund waaye nag fii rek ngay xamee li nga xamante ni am na li nga xamante ni àdduna mu ngi am li nga xamante ni quelque chose de mystérieux fii nga koy daal di découvrir fii ci la TMS TV mu nekk nag li nga xamante ni leçon de vie la waaye itam leçon de morale la euh, ba tax nag euh, amee internautes yi ñu demaat ci beneen euh, internaute ku ci mel ni Binouche Euh, Anne moom itam yëkkati na kàddu yi ci mel ni ci lii keneen euh, kan moo moo ko fi mën a à part Thierno Moule Sow longue vie à toi euh, tonton donc nag mu nekk li nga xamante ni itam bokk internet yi kenn nee naa leen chaque jour kenn moomul kenn ba di leen jënd kon nag Thierno Moule Sow nga ci ngaalaama ci sa xam-xam nga ci ngaalaama ci yàlla lum la may kun fay ak kun ñoo ngi sant yàlla suñu borom gannaaw bu ñu la euh, bi nga xamante ni li nga xamante ni euh, def na ko ci yow ba nga xamante ni ñun sénégalais ñun africains yi doomu africains ñoo am fierté ñu am contentement ñoo am euh, vraiment li nga xamante ni mbégte la ci ñun ba tey nag mbokki internet yi ñu àddu demaat ci beneen internet ku ci mel ni général Maxu général Mahou moom itam yëkkati na kàddu yi ci mel ni il doit mettre ses pouvoirs au service de la science et du développement de notre Sénégal donc nag ay proposi proposition la ba tey mbokki internet yi mu mel ni rek mbokki internet yi ñëpp xam ñëpp d' accord ndaxte nee nañ euh, bu yàlla dogalee da nga war a nangu donc nag internet yi nangu nañ ne yàlla may na ko donc nag moo tax li di mel moo tax nag internet yi ñoom itam dañuy indi seen i conseil indi seen i xalaat joxe seen i suggestion vraiment internet yi kenn amul seen pay yàlla na donc nag lii lañ euh, dañu xuus ba tey mbokki internet yi ñu demaat ci beneen internet ku ci mel ni Lalla Diagne Lalla Diagne nag moom itam yëkkati nag kàddu yi ci mel ni macha allah roi du niroog euh, roy du niroog. pur donc yow yaay borom jinne yi fii ku fi wax man nga euh, génne jinne ku dul yow waxul lu am kon weddi na euh, weddi na ma laa ci le roi des rois c'est roi Thierno Moule Sow donc nag nekk na li nga xamante ni euh, ñi bëri dinañ ko témoigner ndaxte boo buggee xam ne rek lu la leer doxantul ndànk doxatul doxantul ndànk nga ñëw ci fii ci kër Alaaji Thierno Moule Sow di nga xam lu bëri ci moom ndaxte toog si sa siège wala toog si sa kër wala toog si sa bureau di critiquer yomb na torop waaye nag doxantul ndànk yaa xam nag loo mënta yore di nga dox ba ñëw fii ci kër Alaaji Thierno Moule Sow ci clinique médical bu Alaaji Thierno Moule Sow boo ñëwee rek di nga xam lan moo fi ne di nga xam fii kër gi am na baatin kër gi am na mbóot am na secret yu bëree bëri donc nag doxantul ndànk mbokki internet bi wala ki nga xamante ni moo nekk téléspectateur bi bi nga xamante ni moo ñu seetaan toujours na nga ñëw euh, ci kër Alaaji Thierno Moule Sow di nga xam lan moo fi ne donc mbokki mbokki internet yi ba tey ñu gis euh, Daniela Alemon euh, Daniela Alemon moom itam yëkkati nag kàddu yi ci mel ni sa liggéey rafet na donc toujours dañuy rafetlu liggéey Alaaji mu Moule Sow ba tey ñu àddu demaat ci Mati Mbay Mati Mbay nag moom itam nee na macha allah Thierno Moule Sow li ku mu doyul nag xawma lu lay doy donc nag nekk na li nga xamante ni itam euh, affirmation la confirmation la ci liggéey Alaaji Thierno Moule Sow ñu àddu demaat beneen video nee naa leen euh, vidéo yu doy waax la ñu yoree vidéo yi nga xamante ni macha allah dafa am njàngat ba tax nii ñu gis nag ci image yi yéen a ngi seen image yi yéen a ngi gis nag 4x4 bu yemb bi macha allah. Euh, Thierno Moule Sow moo ci nekk euh, mu nekk nag euh, jour bi nga xamante ni jour bu spécial jour bi nga xamante ni mu ngi am luuma jinne jour bi nga xamante ni ci la jàppee jinne yu bëree bëri ci la jàppee jinne xaaxaa jinne xaaxaa jàpp na jinne lëg daawur jàpp na jinne yu bëree bëri ci bës boobu bi nga xamante ni bés bi nga xamante ni mu ngi amal ci plage BCEAO fii ci Dakar donc nag nekk na jour bi nga xamante ni itam Thierno Moule Sow mu ngi ñu ngi koy dar Euh, maanaam ay sécurité am sécurité yi nag saa su ne buy génn dañ koy daal di dar dañ koy daal di accompagner ànd ak moom ndaxte ñoom ñoo yore kaaraangam gannaaw yàlla ak yonent bi ñoom ñoo yore kaaraangam euh, ba tax ni saa su ne Thierno Moule Sow day àndal ak ay sécurité waaye nag ñoo ngi koy gis moo ngi ñëw ci attaque bi nga xamante ne attaque bu chof la ci place BCEAO ba ba ba tax ni mbokki internet yi boobu jour duñ ko mës a fàtte donc nag ni ko tubaab di waxee l'histoire retiendra donc histoire bi dañ nañ ko retenir euh, ci vidéo yi nag euh, ci mbokk internet yi titre bu ñu am nag mooy luuma de jinne di luuma des jinne place BCEAO vous attendez cette vidéo depuis longtemps Euh, la voilà donc nag ci loolu nag ñu gisaat beneen interne ci vidéo boobu nag ñu gis ko ci mel ni Fally Diop Fally Diop nag moom itam yëkkati na kàddu yi ci mel ni maa ngi waajal seen incha allah from États-Unis ndax 10 ans sans papier ma wax ak yow téléphone nga wax ma ni ma da si def euh, ay ñaan trois jours après on m'a envoyé on m'a envoyé un green card de 10 ans au lieu de deux ans si lay door a gëm ni sëriñ sa euh, sëriñ ga existe existe dina ñëw Sénégal donc nag incha allah pour te voir et de de te remercier énormément énormément donc nag am papier Amérique moom daal euh, du lu yomb yàlla baax na ku gëm baax na ku gëmul nag euh, manul euh, maanul rek donc nag mu nekk li nga xamante ni ba tey ay kàddam la waaye itam nee na il ne m'a il ne m'a rien demandé donc nag loolu comme ni ma leen ko waxee rek kenn moomu leen ba di leen jënd kon nag li affirmation la ci bi les internautes bi nga xamante ni saa su ne euh, moom itam xam naa day bàyyi ko ay kàddoom waaye itam mu nekk li nga xamante ni daf ko dal ndaxte ku dem ba ba ba woo jël sa téléphone nga nekk biti réew nekk dëkk ak dëkk vraiment nga woo Alaaji Thierno Moule Sow ci téléphone naan mu ñaana la mu ñaanal rek dans trois jours nga gis loolu donc trois Thierno Moule Sow yi ñëw na donc nag nekk na li nga xamante ni lu kiimaan la euh, c'est incroyable donc c'est miraculeux donc nag macha allah Thierno Moule Sow donc ñu àddu demaat ci beneen internet ku ci mel ni Gansiri Taw Gansiri Taw nag moom itam nee na j'avais tellement attendu cette vidéo Thierno Moule euh, Thierno Moule Sow toñ nga fi euh, rajax euh, kon nag d'accord euh, kon mu nekk li nga xamante ni amee internet yi moom itam commentaire am la waaye ñu àddu demaat ci beneen internet ku ci mel ni Fama Dieng Fama Dieng nag moom itam nee na j'étais là-bas mais c'est extraordinaire inexplicable donc nag mbokki internet yi nee naa leen donc c'est ce qui est extra vraiment attractif vraiment internet yi donc dañ lay suivre dañ lay bàyyi xel donc dañ lay naw donc Thierno Moule Sow nit ki nga xamante ni dañ koy nawloo donc nag Thierno Moule Sow ngàcce ngaalaama bile internaute ak yile internaute yi nga xamante ni dañuy bàyyi ko seen i kàddu jëmale ko ci yow jëmale ko ci sa vidéo yi nga xamante ni saa su ne ngay amal sa thérapie macha allah à toi donc ñu àddu ba tey mbokki internaute yi dem ci Souleymane Balde moom itam yëkkati ne kàddu yi ci mel ni c'est moi que vous que vous voyez sur euh, ah Euh, je vous assure et vous confirme qu'il est le roi des djinns il est très fort donc nag nee naa leen saa su ne ci sama wax njëlbeen ba nee naa leen mbokki internet yi boo leen buggee xam kan mooy Alaaji mu Moule Sow kan mooy the king all the king di ko li médecin traditionnel du monde di bàyyi sëriñ si di de le brodé dem donc nag doxantul ndànk ñëw ci clinique médical bu Alaaji Thierno Moule soo di nga xam lan moo fa ne kon fii la ñuy daal di nder kapp ak yéen mbokki internet yi ci bile internet bi nga xamante ni mu ñu di ko woowee Souleymane mu nekk nag mbégte ak contentement di leen présenter seen émission Actu Net mu nekk nag émission bu lire commentaire ama ci ak contentement ci loolu nag ñu daal di leen jox dig daje ci yeneen i jotaay ci seen émission Actu Net